ma dem waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mi jullit yi mbokk taalibe yi seen mbokk taalibe Fallou na fii ci tëli bi nga xam ne moo di tëli route de Bakhiya bi e, fi mu ñu woon àllarba le 4 octobre del siwaat na fi e, tey jii ci samedi bi yemoo ak le 18 e, novembre boobaag léegi bu toll ci ñaar fukki fan ak nangam mbokk bala may sori sama caméraman da leen di wan ni fi oto doon duggee ni tëli bi yàqo woon wan leen wañ weñ yu bari fi nekkoon wan leen réaction yi nga xam ne moo fi amoon kere ba mu fi ñëwee àllarba le 4 octobre su leen ko wanee ba pare yéen a ko gis noonu xoolal oto yi ni ñu duggee ci ndox mi xoolal weñ yi ni mu mel xoolal yu yàqu-yàqu yaakaar naa ne dégg nañ ne réaction yi jëm ci ay pono tëli boo xamante ne bii mi ngi jógee jumaa ji jëm bàq ya bis bu yàlla sàkk lu ëpp téeméeri oto wala ñaar téeméeri oto dana fi jaar ñu seetaanoon ko ba mu mel nii waaye fii kay moom sëñ bi moom ñun dañ daan teggi sax. Ah. sama gaaraas gi nii ci kanam mais fii yàqule naa fi quartier oto jàmbur boo xam ne fii laa ñëw xeer yi mool yi feer yi ci la yàlla def ma dal ci mooy xoolal piéton bee ngay séenee mu quartier bi ci la toj fii laa lonkee oto boobu. ndax da yàq-yàq bi yàgg na. Euh, bii nag euh, yàgg na ndax xam na avant ñuy koor. ki euh, na dugg nawet. la commencé def feer bi di commencé génn. ndax kenn ñëwagul na fi pour defar ko. man nag bàyyiwuma ci xel waaye sama route la nag bàyyiwuma ci xel nag waaye fii moom sama route la. fii laay jaar ale xanaa ku ko defar rek. defar gi mu baax nag dëkk sëñ Juwaay moom lii nii wax dëgg yàlla buñ sañoon mu baax euh, ci quartier bi nga dëkk. yor oto de. waaw yor oto. noo def euh, yàqu-yàqu bi bi may gis ngay ni ngay dugg di yor. <laughs> xanaa doy waar rek. Ah. waaw doy na waar loolu metti na ndax fi ne daanaka boo fi jaaree sa ndimbalu yàlla ngay am rek xam nga ne lii moom mën naa yàq say pour wala ma yàq say organe oto. xam nga ne loolu moom wax dëgg yàlla du yoon. yan kàddu nga ci yëkkati pour. ah xanaa di wax rek nag ñu fonk tali Touba waa waaw di ko wax surtout maire bi ak di ko wax tamit état bi ndaxte des fois maire bi da ngay dégg mu naan tali boobu du sama tali tali état la waa état tamit di ko géej maire bi xam nga yooyu noonu waruñu cee mën a nekk lu toll ne route bu jëm bàq yanga xam ne daanaka centaine de millions doomu ñoo fi jaar par bis ay war nañ ko mën a def tali karo bu dëgër boo xam ne nii waxuma la toj waaye am ndox rek du ko gis waaye mbokk yi alhamdulilahi rabil alamin bi ma yëkkatee sama kàddu ma jaajëfal bu baax a baax waa Touba ca kanam ñi nga xam ne laaj loolu man di ko def fu ñu xam te ñu yor ñaar téeméeri murit ñëw nañ nag ci tali bi mbokk yi yéen a xoolaat tali ba ma leen wanoon léegi nii moom laa leen di wanaat nii dindi nañ mbooleem yàqu-yàqu bi ba mu set ñu sànni ko ca àll ba wut Touba na jiital xeer bu xonq teg ci xeer bu ñuul bu mag bi nga xamante ne bii fii ab rajo lay doon du tee mu ànd ak mu war a àndal ci béton ànd ak moom ci fer lépp ñu soog a fa tër bi teg ko ci kawam yaakaar naa ne bii defar daal mooy li nga xam ne moom la ma Touba yónni na ma nag boo jaaree fi barab muy ay yàqu-yàqu suñu ko defaree ak ku ko mën a defar na nga fa delluwaat nag jaajëfal ña ko defar ndax kat kuy jàmbat ku la fajal sa njàmbat nga bëgg te kenn naata du ne Touba dafa jaaxle woon ci boppam jaaxle ci ay mbeddam jaaxle ci population bi nga xam ne ñoom la dëkkal waaye nag lii daal moom Touba nee na jërëjëf Touba ca kanam Touba nee na jërëjëf Touba ca moo ma yónni ma jàmbatal ko tey moo ma yónni ma santal ko ñan laa koy moo daayira nooru daara yi nii Touba ca kanam ñoom ñi nga xam ni ñoom dégg nañ jàmbat li ñëw def fii nag seen yitte ba mu fas yéene saafaru ba mu ñu àggatee ci nawet ba benn taataa wala benn jafe-jafe wala lenn luy walla gàllankoor duutu mën a am ci route bi nga xam ne moom lañ tuddee route nationale ndax képp ku am di liggéey fa lañ lay jëme ji foofee nag amul kenn boo xam ne boo xëyee sa mbokk dafa jaar wala sab xarit wala yow ci sa bopp sax ñu jaaral la fa waaye gis ngeen bokk yi oto nañ fi jaara léegi ñi mu normal te pareegul waaye buñ paree dana gën a normal kon seen bokk bi la fàllu gën a sili tey jii ci gaaw bi yemoo am euh, fukki fan ak ma àndoon ak sama cameraman Babacar ñëwoon fii Touba yónni woon ñu ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous ci beneen épisode ci Touba ma yónni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu